loi la boo xam ne baaxul loi la boo xam ne suñu seetaanee mu jàll nun li nu gis mooy danañu dem ba parti dana ñu am ñoom sañ-sañu man koo tas ndax ni nu koy tasee mooy nit ki su defee dara bokk ci parti politique loi bi da leen di may ñu am sañ-sañu yóbbu ko ci yoon atee ko wane ne maanaam lii mu def danañ ko dugal ci wàllu terrorisme dëgg ca ba tas parti politique bi xam ne ci la bokkoon tey jii nii bu ngeen xoolee dañu wax ne amuñu sañ-sañu déglu ku nekk si gouvernement amuñu sañ-sañu déglu député mais procureur ñu jàpp ne moomu réew warul la nekkati Sénégal boo defee manifestation même boo demoon demandé ñu may la autorisation ñu wàññeekuwaat ci biir manifestation ba am ay yàqu-yàqu wala dara bu boobaa dañ lay yóbbu directement maanaam comme ab terroriste lañ lay attee bu boobaa léegi mën nañoo dem ba daan la cinq ans yoo xam ne sax da ngay kenn du la attee ba cinq ans yi lii ñu door a commencé at bu leen neexee ne dix ans la vingt ans donte dañ la may autorisation pour nga def marche su fekkente ne